ñun u dul am njaxare rek ginnaaw bi nga xam ne ni li yàgg di artu ay at a ngi nii quatre vingt dix huit quatre vingt dix neuf deux mille jékki na rek ne fàng ñëpp teg ci seen bët mu du yàgg nañu di wax ni organisation Miss Jongama ak Miss Sénégal yàq na xale yu bari loolu ma waraloon ka ka daan organiser mais daf ñuy yóbbu tribunal presse bi yëpp jàppale ko ci daal di diaboliser Jamra waaye gis nga li yàlla di def day lu ne fàng moom kenn du ko jeex ndax kenn mënul woon xalaat ne Miss bi si boppam édition deux mooy def ay révélation yu graaw ci anam bi nga xam ne noonu nañ leen recruter demander saisir dossier ba pare tas kuréel ndax yàq xale rek lañ viol la loi deux mille vingt zéro cinq du dix janvier deux mille cinq daf ko criminaliser président comité d'organisation bi nga xam ne moo waroon defal xale ci natt bi leen dal amul dara lu mu def lu dul naan leen ku ñu violé yow la neex wa kon yoon nee na ku wax loolu yaa ngi kañ viol yaa ngi def apologie du viol ñaareel ba équipe bi jàngara bi nekk sur le terrain di continuer seen i jéego pour rencontrer directeur société commerciale ndax ñu retirer CFA Sénégal ñoom jël nañu les devants ba nangu nañu oto ak xaalis bi ñu joxoon ni Sénégal yëpp na ñëpp a def noonu ñu tas kuréel bi ndax li ñu yàq ci ay doomu jàmbur doy na sëkk di profiter ci crise économique bi et sur la crise de l'emploi dañ ko war a dakkal mu jeex